Moustapha Sano coordonnateur PASTEF à la faculté de sciences juridiques et politiques tey jii ñëw woote woon point de presse bi pour waxtaan ak Sénégal donc merci voilà en fait ñun dañu am suñu kàddu en tant que ndaw en tant que jeune di ko adressé président de la République du Sénégal di ko fàttaliki priorité yoo xamante ni moom la war a am mooy éducation na éducation bi na jaar yoon nit ñi jàng nu ñu war a jàngee mais chaque année grève ku feebar mën a faju jeunes yi di dee ci géej gi chaque jour ci mbënd gi pendant ñuy chaque chaque jour jeunes yi di dee ci géej gi des milliers de jeunes ñoo ngi dee ci géej gi cent dérange personnes tey jii entreprise yoo xamante ni entreprise nationale sen privée yu fi nekk yoo xamante ay sénégalais ñoo ko moom pour ñu protéger leen problème agriculture bu ñu digoon bu fi ñëwee dinañ am auto suffisance alimentaire gisuñu ko mbënd gi tey la gën a garaaw donc facteurs yooyu yëpp nañ ci ñëw benn par benn wan ni Macky Sall da nga am ay priorités yoo xamante ni ndaw xaar nañ ko ci yow jeunes yi xaar nañ ko ci yow te bëgg nañ nga répondre ci euh, priorité yooyu moo gën ñu nekk ci ay futilité débat politique bi vraiment dafa baax da ngay posé wu la question à savoir est-ce que yaw dëkk Cheikh Anta nga nekk est-ce que dëkk Maam Bamba nga nekk est-ce que dëkk Babacar Sy nga nekk est-ce que dëkk kilifa diine yi nga nekk parce que lu ñuy waxtaanee si lieu de lieu public bi vraiment ça ne nous honore pas moo taxit tey jii ndaw yi def mobilisation waxtaan ak moom point par point premièrement éducation bi fii si Sénégal dafa nërmeelu ba ñëpp xam ko dañuy toog ay mois duñu jàng même ñu nekk université ñu am niveau priorité bi foofu la nekk Macky Sall dañ la fal pour nit ñi am autosuffisance alimentaire sénégalais yëpp mën a dund mais loolu amul tey jii nii ba coronavirus bi ñëwee rek lépp a prix yëpp a falambew prix yëpp a yokk sénégalais yëpp a sonn ndax autosuffisance alimentaire alimentaire boobu noonu nga dig ñu gisuñu ko Macky Sall li ñu dégg te gisuñu ko bëri na jeunes yi dégg nga leen emploi tey la jeunes yi gën a tumuranke fii nii rek buñ sori université Cheikh Anta Diop da ngay gis des milliers de jeunes ñoo xamante ne dañu am seen lijaasa fii la ñuy toog di naan ataaya chaque jour parce que amuñu liggéey keroog rek ba ñuy inaugurer stade bi vous avez vu des milliers de jeunes jour ouvrable ñuy dem di inauguration stade bi ba mu fees ba fépp fees ça veut dire que jeunes yi liggéeyuñu jeunes yi nag ñoo ngi xaar ci moom ay liggéey pour jeunes yi gis seen bopp ci dëkk bi tey jii ku feebar boo amul xaalis ci couloir yi ngay dee te du dëgg du yoon te coronavirus bi ba mu ñëwee on a injecté des milliards foofu noonu tey jii la la la la gën a la gën a nërmeelu ndax am na médecin yu fi taxaw devant tout le monde ne am na ñuy jël matériel yoo xamante état bi da koy da jënd ñu koy jaayaat jaayaat si si euh, hôpitalu privé yi donc agriculture bi ci maanaam ci fànn boo laal rek moo ngi metti Sénégal pour résumer kon tey jii nii ñun lu ñu xaar ci moom mooy mu répondre exigence yoo xamante ni diggee na ko jeunes yi moo tax ñu fal ko mais gisuñu ci dara tey jii lan la ñuy nekk di wax waxu Sonko violé na wala violé wu ci mbirum caaxaan nga xam na ni ñëpp xam na ni ay tapela la ñëpp xam nañ ay sos la ëllëg ñu concentré wu wax lu priorité sénégalais ñu fiy nekk di ñu dugal ci ay guuta yoo xamante kenn xamul fan la jóge mois de mars bi rek Sénégal pet na ay milliards ci affaire caaxaan affaire foo des milliers de jeunes ñu dee tey jii ba tey enquête amul ñun priorité bi tey jii nii Sénégal ñun ñëpp jàmm lañ bëgg amuñ double passeport suñ doom yi jànguñu ci jànguñu à donc ñun lu ñuy sàkku mooy nañu jël débat politique bi relever ko répondre exigence ndaw yi moo gën ñu nekk fii si tappale yi ndax Ousmane Sonko ku sell la deful laalut dañ ko tuumat du dëgg du yoon ndax seen complot bi nii jaaxalul kenn ndax complot bi xale sax mun na kaa monter kon affaire u caaxaan dañu bëgg mu dañ fi Sénégal ñu répondre priorité yi ndax moo tax ñu fal ko fi 2012 moo tax it ñoo ngi laajte ñu génnee contrôle judiciaire bi nga xam ne ni teg nañ ko ci Ousmane Sonko nga xam ne tey jii nii moo ñu taxawloo fii pour waxtaan seeg sénégalais contrôle judiciaire bu teguwul ci benn fànn na génn ndax Ousmane Sonko bu ñu lay teg contrôle judiciaire dañuy xool ndax yow doo daw wala di nga des si dëkk bi pour ñu mën la contenir pour ñu mën la téye jël say liberté tënk ko pour nga bañ a daw moo tax ñu lay tegal contrôle judiciaire pour tam victime bi nekk sécurité moo tax ñu lay tegal contrôle judiciaire loolu yëpp condition yooyu yëpp amu fi Ousmane Sonko député la fii Sénégal Ousmane Sonko am na fi famille am Ousmane Sonko maire la fi kon amul benn intérêt di daw. lu tax ñu téye dossier am nag ñun xam nañ ko mooy dossier bi tappale lañ fi nekk bu ñu demoon justice tey jii justice da koy balance te entre te ñoom du leen arrangé moo tax ñu koy tardel ñu koy chargé di wax ci lu ñàkk fayda te amut. voilà tey jii alors est-ce que tey jàpp nga ne dina yomb nga xamante ni moom moo nekkoon ko accusé bi Ndeye Khady Ndiaye nekk euh, nañ ko mardi fait ñun amuñu yaakaar sax si juge si justice Sénégal ndax juge dem moo ne j'ai démissionné j'ai démissionné parce que la justice a démissionné ñun xam nañ justice bi ni pour pauvres yi pour ñun la de ah justice bi tey jii ñun ñii ku ci defoon lu saaf loo xamante ni waroo ko def. ñu rëkk sa ndigg justice bi am na ñu fi nekkal jurisprudence yaa ngi fi nit ñi teg nañ seen bët ñaata dossier moo nekk OFNAC ñaata dossier moo nekk IGE ñaata dossier ñoo ñoo ñoo duj baaraam ñu nekk ci nguur gi ne leen détourné nañ ay milliards dossiers yooyu fan lañ dem ay faux billets ñoom seen lépp gis nañ ko fi <coughs> léegi tey su weesoo tey jii seen jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi laajte pour ñu daal di dindi euh, li nga xamante ni moom moo nekk contrôle judiciaire bi ñu teg ci ndodd Ousmane Sonko ana voilà ñun jeunes yi ñun étudiants yi ñun jeunes yi ñun étudiants yi ñun Pastef UCAD du ñu nangooti kuy xoqatal Ousmane Sonko lum leen jaral jaral nañ ko parce que pare nañ sax pour joxe suñu bakkan pour Ousmane Sonko dañ koy def addiya ngir Serigne Ousmane Sonko bu sell ndax trop c'est trop trop c'est ñun Macky Sall dañu amoon si yaakaar suñu parents yi amoon ci moom yaakaar moo tax ñu fal ko fi yaakaar boobu dañ na léegi jeunes yi nag ñoo am yaakaar si Ousmane Sonko te incha allahu rabi dañ koy accompagner jusqu'au bo teg loxo. ma ne ñun suñu xel tey na si justice am nañ ci droit suñu droit le plus absolu lu tax mu tey ci lu bëri la fànn yu bëri mais pour ma gàttal rek buñ la tegee buñ la tegee euh, contrôle judiciaire dossier bi dañuy am loo xamante dañ lay naan yow waroo ci wax kii waru ci wax gis nañu aji Sarr ak maître El Hadj Diouf ba ñu defee concours kii bi daa di def daa di def euh, benn sorti publique chargé Ousmane Sonko te waru ko def. gis nañu buñ la tegee contrôle maanaam buñ la tegee contrôle judiciaire dañuy am nuñ lay tënkee ba dossier bi doo ci mën a wax ñaari parti yëpp du benn partie kese ñaari parti yëpp donc ñu ñu teg ay règles yoo xamante ni ku ko transgressé dañ lay sanctionné. gis nañu bañ defee loolu yàggul Adji Sarr génn ak avocat am daal di wax lu ko neex bañ ci génnee avocat am wër télé yëpp lu yoon yooni yoon di chargé di def lu ko neex te amu ci droit Ousmane Sonko gis nañu tamit médias occidentaux yu fi ñëw daa duma leen defara promotion di wax seen tur ñëw nañ fi def lu ñuy def benn parti rek lañ déglu benn parti rek lañ kii pour manipuler population bi te ñun léegi média locaux yi média yu fi nekk sax amatuñ ci ñoom ñu si bëri amatuñ ci ñoom confiance parce que site en li yi la ñuy déglu ay activistes la ñuy déglu ñeneen la ñuy déglu pour ma wan la rek loolu yëpp def nañ ko fi am na fi kenn waxut justice waxul kenn waxut union des magistrats génut kenn génut Ousmane Sonko daal di génn wax rek ñëpp attaqué ko union des magistrats boo xamante magistrat yi dañu bindoo noo xamante ni daam lu leen tënk ba mun ñu wax yenn yi ci média dem juge bi naan euh, ku leen jiite naan man déglu ma Adji Sarr man Sonko laa déglu lu tax dégg ba Adji di di wax foo nekkoon xanaa nekkoo Sénégal caaxaan yooyu la ñu bëgg moo bàyyi moo taxit nag suñu njiit am taxawaay bu mu amee taxawaay ci dossier bi ndax fulla nag borom moo koy may boppam te pare nañ pour protéger ko te incha allahu rabbi lii premier plan d'action la kese le premier avril dañuy daje fii place de l'Obélisque dañuy def suñ demande mu doon loo xamante benn rassemblement Dakar bi yëpp ñu dem daje fa tant que joxuñu ko euh, tant que bàyyiñu ko génne ko si contrôle judiciaire u caaxaan boobu noonu jox ko passeport a mu mën a def ay occupation ñun dinañ continuer plan d'action bi jaral nañu lépp amuñu problème yàgg nañ fi sacrifier nañ bu yàggul lekk mois de mars yi paree jël nañ fa ay étudiants sanctionné leen xam nga te gis nañ xam nañ lépp lu lu tax ñu sanctionné leen dàq fi ay étudiants yu bëri ñun ñëpp gis nañ lu fi nekk mais jaral nañu lépp suñu carrière amul problème lépp na dem mais am nañ benn espoir boo xamante ni mooy Ousmane Sonko te dinañ ko jàppale jusqu'au bout